ngi koy ñaanal ngi ñaanal ndigal suñu borom may ko ndam te ndigal dafa wax bu am important boo xam ne dama ko seetaan te loolu dañ ciy interpellé tey jii nii mbër yu mag yi nga xam ne ñoo nekk géejawaay di ci interpellé suñu mag suñu xarit suñu lépp muy Balla Gaye numéro 2. des fois su may wax si moom nag dañuy foog ne dafa am problème suma diggante ak moom wala dama am parce que keroog Babacar sax bi ma waxee ak moom pare si tiitaram ñu ngi yaakaar ne dama dal ci kaw Balla Gaye Balla Gaye man du ma dal ci kawam duma wax ci moom lu ñaaw duma ko def lu ñaaw parce que munuma ko en fait li ko yàlla jox ak li ko suñu borom jagleele ñun santale nañ ko ci yàlla bu baax rawatina mu nekk suñu fierté muy doomu géejawaay ñun mënuñu am lu ëpp Balla Gaye numéro am lu sut Balla Gaye numéro 2 waxuma dootul amaat waaye du gaaw te heure bi ñu ma dekkee micro loolu laay wax waaye damay bëgg tout le temps rek ñun ñu xam ne ñun ay doomu géejawaay lañ man kenn ëppale wu ma géejawaay fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa màggee nag laa wax muy Médina Gounass amul benn commune bu ëpp Gounass fii biir géejawaay amul loolu ñi may wax nag xam nañ ko Médina Gounass amul benn commune bu ëpp biir géejawaay boo faloo fii maire ñoom ñoo lay fal boo ñàkkee ñoom ñoo lay xañ maire ville bi boo fi faloo ñoo ñoo lay fal boo ñàkkee ñoo lay ñoo lay xañ ginnaaw yàlla kon kenn ëpp ñu kon digal ba tey damay ñëwaat rek nit loo mën a xaritoog moom xaritoog moom xaritoog moom yaakaar naa ne sa xarit bi nga dëkkal mënul gën a rey xarit boobu loo mbokk nit mbokk woog nit mbokk nit am na mbokk yoo xam ne day day day day sut sax deret rawatina keroog Jacob Baldé li mu wax kii ah Pokola wane na moom doomu Pikine la wane na moom carrément deret bi gars yi di woote wala li ñuy ñoo di noonu ñoom la engagé mais moom engagé wu ko ñaanal booy ñaan ndam wane na moom doomu Pikine la moom loolu mu feer noonu boo koy wax ñun ñoo ko ko gën a feer ñeenti yoon ay doomu géejawaay lañ dañuy ñaanal Balla Gaye numéro 2 yàlla may ko ndam lu seddu guy si kaw booy ñax mu soobee suñ borom. di wax li mu bëgg ci carrière lépp moom Balla Gaye numéro 2 suñu borom yeggaleel ko ko si jàmm ak salaam comme ni mu ko waxee keroog rek tey Balla gay numéro 2 tey jii nii su fekkee yàlla dafa dogal mu bàyyi bëre ñun dañuy tumranke ci làmb parce que leader bu mel ne Balla Gaye numéro 2 gox bu muy yeewoo rek bëgg nga ko kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex ñaanal ko ndam ci combat yi mu jëm mais di ko gën a bàyyiloo xel man du ma noonam bañu ma ko. ku ko sopp laa pour yenn gars yi détail quoi te ñu bàyyi ma ak sama gëm-gëm man man nañ ma bàyyi ak suma gëm-gëm ah man su ma noppee mën a wax dëgg rek ci ku mënti doon ma noppi mais du ma wax lu ñaaw duma def lu ñaaw la Balla su ñu mag la parce que géejawaay dafa bëri yenn défaillant yoo xam ne dañuy bëgg lu neex nit ay seetaan nga booy bi lu mu wax ay non booy bi day ñoo di affaire star ay dégg lu mu wax man nekkuma foofu ñu baal ma ci kàddu bi bëgguma di sax di nettali ay histoire parce que du ma naa fekk du ma seytaane. waaw ñu bari dañuy wax da ngay concurrent ak moom danga koy diir mbagg. di di di di di di di di wax si benn wax boo xam ne bo yaa xam xamti woon naa see wax. si si si si si diggante kaaw bu ak guy gi. loolu moo gën a délinquant. Mhm. sama diggante ak Balla te loolu du man xalaatuma ko. du ma def yooyu te pourtant keroog accompagné nañ Bou Siteu ne erreur la def te dëgg la erreur la. xam nga donte fougue de jeunesse am moo ko def looyu mais nit ku baax la Bou Siteu su ma xarit la boo xam ne yàlla xam ne bu doon bëri mbapat dama ko doon jox samay gàllaaj muy takk di ñëw fii sama gàlle mais keroog affaire bi mu def man dama ko ñaawlu mais ñun ñëpp ñoo bokku ndey ñoo bokk baay guy gi magam la te suñu mag la ñun loolu man duma ko def guy gi du ma ko def bala Gaye du ma ko def Sa du ma ko def la de parce que tolloowaay ñoo dul benn waaye am naa samay kàddu yoo xam ne suñ ma laajee ci mbër mu ma war a wax ma wax si moom mais ci yar ak teggin laa koy defee maa ngi sant mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk géejawaay yëpp di suma leader la de Guiers numéro 2 Balla Gaye suñu mag la suñu lépp la pour rek moom mu xam ne man du ma noonam mu xam ne man rakam laa mu xam ne man tey jii nii ku ko sopp laa laa wax Balla Gaye 2012 bu muy bëreeg Yaxya Jóob ni man maa ngi ci kaso bi liñ fa dund ak liñ fa dej ñu fa ñu dëkkoon géejawaay dëkk Médina Gounass loolu mun nañ ma ko seedeel sama troisième drapeau bi may jël 100 mètres final drapeau bala Gaye Balla Gaye lañ ko tuddee woon ñoom Baye Ma Ndiaye ak Lamine Golo ñoo indi woon drapeau bi maa ko jël kon Balla Gaye amul lu may ñoddi sama diggante ak moom suñu mag la jox nañ ko cër tax xam nañ ne suñu mag rek la war a doon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Ikiri Waalo ak mbër nga xam ñoo nekk Ikiri yi nga xam ne ñoo nekk Géejawaay ak lu ñu wër yëpp. ñëwal ci combat bi am.